asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi santaat borom bi subhaanahu wa taala julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim di ñaanal sëriñ Touba cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram di amaat mbégte nag di toog ci jataay bi nga xam ne jataayub mbégte la waaye jataayub sant yàlla la feggoo ak jëmu ju di jii di sëriñ Mouhamadul Mahfous moom soxna Maymuna Mbacke bintu Cheikhul Khadim mu feggoo ak sëriñ Abdoulahat Mbacke moom soxna Baali moom soxna May moom sëriñ Touba Khadim Rasoul waaye feggoo ak Baye Cheikh Awa Balla ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Montaxa waaye nag ci kilifteefu mbooleem njabootug maam Thierno Ibrahim borom daarul moxti gépp waaye ak mboolem njabootug Cheikhul Khadim gépp bokk yi xam ngeen ne bis bu màgg dëgg malaat na muy bis bi nga xam ne moom la caatum Cheikhul Khadim ma ka ganee woon àdduna ci atum 1925 ca njaareem di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Khadim daan wooteel Serigne Touba muy guddik laylatul xadar gi nga xam ne moom la sun borom wax ne xayrun min alfi shahrin bis boobu nga xam ne ba mu ko dikkalee ca daarul mooti fa la togge woon yaari ginaaram ya ca daarul marnaan ñëw Touba fekk fi magam ju tedd ja di sëriñam ba di Cheikh Mahamadul Fadal Mbàkke mu teg ko ci loxoom mu ne ko may mu ne loo jublu ci lii mu ne ko damaa toggaloon sëñ Bamba ab reer ci guddig laylatul xadar di ko ko yët te yaa fii sëriñ Bamba mu ne ko may mu ne bis bii dana dem ba ëpp say loxo danga ci rey ay gëléem da nga ci rey ay ginaar bis boobu nag moo dëg dëg malaat te kuy liggéeyal sëriñ Touba ci alxuraan nga ko war a tàmbalee moo tax weeru koor bi balaa teru sëriñ Mahamadul Mahfous dana ànd ak njaboot gi di Serigne Cheikh Abdoul Ahad ak soxna Aïssatou Mbacké ñu waraat daara yi séddale fa mbooleem lañ leen war a jox ba noppi nag santaane waat njàng moomu bis boobu nag moo war a dëgg malaat war a nekk fukki fan ak juróom benn ci weeru koor dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ginnaaw bu sëriñ bi demee ci sëriñ Mouhamadul Muntaxa sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jokkoo ak moom lam ko wax moom la sëriñ Cheikh Abdoul Ahad fas yéene yëkkati ngir woote bis bu tedd boobu nga xam ne moom la ñuy waajal tam nekk ci sunu kanam ñun ñëpp ñu maase déglu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di jëwriñu alaaji Mouhamadul Mahfouz moom soxna Maymuna moom sëriñ Touba Xaadimu Rasul min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mboolem mbokk jullit ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a tedd di ci jiital kii di suñu wayjur di suñu sëriñ di sëriñ Tuubaa tey ci kaf suuf mu di Cheikh mu Mountakha di ca teg mboolem njabootu sëriñ Tuubaa yëpp di ca teg mboolem mbokk yëpp di ca teg mboolem cheikh sëpp mboolem taalibe yëpp la ko dara ci sëriñ si Abdou jaar ci sëriñ Bassirou Anta Niang jaar ci Alaaji Maam Cerno ba ci ki gën a tuuti ci yoonu murit di dellusiwaat tey jii rek ci weer wi nga xam ne day weeru tedd di weer woo xam ne weeru yërmande la di weeru njëggal di weeru gore sawara ni ko àddi si indee di weer woo xam ne weeru Sëriñ Tuubaa fonkoon la ba nee nañ bu jub siwaan lu ko waay laaj dalal naan xanaa dama ko danga koy teeroo sama gan gi weer woo xam ne ñëpp xam nañ ne musaan dikk ca njaareem sëriñ bi kër gi day fanaanee riir ba bët set kenn ku nekk nekk fi barab nekk dara di jaamu yàlla di weeru alxuraan wante itam di weer woo xam ne nag mooy weeru guddi lay du xadar muy guddi gi nga xam ne moo gën fukki weer moo gën weer guddi googu nag soxna may mën a bind xaadim rasul tànnoon ko ngir liggéey ci wajuram àndoon ko ak ka nga xamante ne bii mooy magam yu baax ja di cheikh naa cheikh Modou Fadel defan ci ñaari ginaar dem ca yóbbul ko ko jóge Daaru Muxti fekk fii ci tuubaa xaaju guddi sëriñ bi dogul ca lam ko dogul ba tey ji bis bi bokk ci bis yi nga xam ne ci bis yi gën a rëy bis Sénégal la bokk bis boobee nag moom la Cheikh Mawone Mahfouz di wéyal nanga xam ne noon noonu la ko soxna si daa defee mm-hmm. waaye soxna si tam lam daan def moo di nam ko defoon ki Sëriñ Fallu noonu la ko seqoon ak mbooleem ñu ko fi ñu fi wutu woon ñëpp mm-hmm. mu di Cheikh Abdou Lahad ak Sëriñ Saliou sëñ bi itam muy sëñ Mahfouz bala moo def dara dana ba ci ki fi nekkal Sëriñ Touba mm-hmm. laaj ko ci ndigal ba mu ko defee ba noppi mu woo ne ma gannaaw yow yaay jiite liggéey bi yaay président comité d'organisation bi dama bëgg nag nga wax ak sëriñ bi mu xool ban doxalin la bëgg ñu doxale ko noonu mm-hmm. ba démb di fukki fan ak ñeent ci weeru avril ci 23 heures 45 sëriñ bi ne ma ñu Cheikh Mamadou taxa ne ma sëñ Mahfouz ñëw na fi laaj ci ndigal jox naa ko ndigal waaye nag mbirum doxalinu màggal gi day man ak moom jotuñu cee wax ndax jataay ba dafa xat waaye nee ko lépp loo xam ne mooy njàngum alxuraan mi nañ ko yokk lépp loo xam ne mooy njàngum xasida mi nañu ko yokk lépp loo xam ne mooy bernde yi nañu ko yokk lépp loo xam ne mooy jataay yi nañu ko yaraaxal ma ne ko ah moom de Mbàkke ñun sax dañ doon xalaat ba nga def benn tànt ci mbedd mi xalaat nañu itam ba nga def cérémonie officielle bëgg boo boo xamante ne ndaw yi président Macky Sall agsi nañ ci sëriñ bi mu recevoir leen kii saal ba ca suuf nekk ca HLM waxtaan fa ak ñoom ñu joxlante fa ay kàddu santante suñ mu daxaa jëlaat kaddu gi ne ma ji loolu yi doon sëkk ci ak wàññi hmm. daal koy baamuwaat ne ma loolu yi doon sëkk ci ak wàññi bu dee ziyaar yi ak daayira yi nag loolu moom kër gu ne am na ko daal ne ma tal ki tegaat mu Cheikh mu ndaxaar ne ma ñoo sëñ Mahfouz ñoo koy ànd ci njëlbéen bana bi jeexee lañ ko daa defee lii la ma sëriñ di wax loolu moom lañ jotali mbooleem mbokki taalibe yi kon ñu xam ne li nga xam ne moo jëm ci alxuraan ji loola nañ ko daan defee bare woon na lool ndax ci at mujj mi mat na dix-sept mille trois cent camions muy fukki junni ak juróom-ñaar ak ñett téeméer yoo xam ne sax tegal na aslëf jàng nañ ko ci li nga xam ne mooy daara alxuraan yi man na téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent yoo xam ne kontewuñ wuñ daara yi nga xam ne dañoo bootu ci ay kilifa ndax ku mel ne Cheikh Maodo Bachir moom sëriñ Fallilou nekkoon jëwriñu soxna si daa sonn lool ci bis bi li nga xam ne mooy ay daara yu ne ci ginnaawam kenn xamul nu mu toll ku mel ne seen Abib moom sëñ Falilu moom itam nekkoon kenn ki soxna si li bootu ci ay daara ci ginnaawam kenn xamul nu mu toll kon daara yooyu bootu ci kilifa yooyu ak ñi mel na ñoom boo ko ci boolewaatee daara yi kenn xam nu mu toll daara ju ci nekk nag sëriñ bi yu yónnendal ab enveloppe boo xam ne la mu ca def jëf yi sëriñ Tuubaa moo ci jiitu ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko njëkk a jox ne ko lii defal ma ko ci mu soog caa def moom alalam njaboot gi soog caa topp te noonu mooy na soxna daal ndax soxna li mu daan def da ko daan bay ci aw ñax xam di ko ca def kon sëriñ bi loolee def na ko ngir ñoom ñu gën a sawar ngir gën koo dëgg ngir gën koo dëgërale kaddu gi nga xamante ne bii mooy kaddu sëriñ bi la nga xam ne moo aju ci xasida itam noonu lañ koy defee la nga ne moo aju ci berne itam noonu lañ koy defee itam duñu tant ci biti cérémonie bi itam duñ ko def léegi ci ziar yi itam mu ne ziar yi ak daayira yi ku ne am na ko kon loolu itam kenn ku nekk daayira bu nekk ak ziar boo daan def mën ngaa wéyal di ko def dañ sàmmonte ak fi nga xamante ne bii foofu fi la fi jamono ji toll. kon loolu yi mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñu doon yëkkati sëriñ bi mi ngi ko yëgal itam nag ki nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi mu di président de la république Macky Sall di ko yëgal itam mbooleem ñi nga xamante ne bii ñooy yëngu ci réew mi yëpp mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di sant bu baax na ñi nga xam ne ñoo bokk yi parce que yéen ànd ak ni xam ne la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxe ànd ko ca njaalbeen ba ca jeex jàmm njëkk ci jàmm mujj ci wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu mbokk yi kàddu yaa ngi noonu jëm ci bis bu tedd boobu nga xam ne Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha dégg ngeen nim ko waxee ak ni mu ci jëfee yëkkati alalam def ci na ko liy jiitu ci bis bi kenn du ma ci jiitu te maa ko yow ñoo koy ànd ci njalbeen ba ci sottantal la lépp yàlla na ànd ak jàmm ak xéewal ak tawfeex ci réewum Sénégal kon nag sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp ñi nga xamante ne bii daanañ jëf ci laylatul xadar ak fuñ mën a ne xam ne bis baa ngi noonu seen bisa soxna Maymuna mi ko sosoon dimbale jaam rek a taxoon mu di ko def te daana xam ne ku ne liggéey bu yàlla nangu da nga koy xam waaye ku gis lay liggéey bi xam ne suñu borom nangu na ko soxna Maymuna daana ko wax kon nag yàlla ñu ci tàbbal suñu ko ci biir li mu nangul sëriñ Tuubaa tey suñu ne yaatu lool yàggal fi sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul lii nga xam ne mooy nuru mbas ne ci biir réew mi yal na ko yàlla génne ci réew mi génne ko Afrique génne ko ci àddina bi ba mu jeex takk sun borom nangul ñu sunu koor barakati Cheikhuna Ahmadul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.